ali haqa qadri wa miqdaari al-azim wa radiyallahu an ashaabi rasulillahi sala ajmain la hawla wala quwwata illa billahi yawmil safar démb ñu ngi jeexaloon zaariyaat saar wi mi ngi ko jeexali ci tëkku fa waylul lazina kam yawma kaanu yu'adun bés bi ñuy dig bés bi ñu leen dig bu ñëwee danañ fa am mbugal métti ñoom ñi nga xam ne ay xéefar la ñoo weddi yàlla mu commencé sourate Tuur Tuur nag ñu ne mooy ab montagne la ba nekk ca suuf su sell sa nga xam ne fa la yàlla doon déeyandeeg Seydina Muusa alayhi salaam doj woowa nga xam ne mooy tóoru Sina nga xam ne sa la yàlla defoon tajali ci Muusa wax ak moom naan ko inni ana allahu rabbu fa'laxnaa ilayka innaka bil waadil muqaddasi tuwa ñu ne tóor boobu ci la yàlla ko ca saari suuf yi wa tóori wa tiini wa tóori sinina wa asal balad ndax ñetti barab yëpp benn bu nekk dafa représenté ñetti yonentu tóori sina

li ko tax a li muy saxal foog mu saxal fa wihdaniyatullahi dalaay li nga xam ne mooy tegtale qudratahu ak risalatu mooy ak nubuwatu dana ko saxal waaye dana fa saxal it dekki jasa albaas alqiyaama baasu baada almawt albaas nga xam ne mooy problématique bi nga xam ne moo jaaxaloon xéefar yu njëkk yi moo jaaxal xéefar yu mujj yi nañ ne dee moom mënta ñàkk dana am ndax neexut a weddi waaye dekki nag moom la ñuy sikk waaye ku mënta weddi de mënoo weddi mënoo weddi dekki ndax kiy rayaate mooy dekkalaate yàlla mooy rey nit ñi gannaaw jaarle ko ci malaaka malakul mawti moom la ñuy wakkil waaye kooku nag li ñuy rey moo ñu juddul moo ñu amal moo wax ne daa leen rey daa la dekkal te mi ngi rey loolu moom gis nañ ko amal nañu ba bari judd ba bi nga dem hôpital gis maternité nit ñaa ngay juddu nga dem ci lali hôpital am ñaa nga feebar ñu ngi ci yoon wa ñaa àgg nañ ña nga morgo kon nga xam ne kon àddina bi na lay doxe yàlla ci loxol kenn la nekk yàlla moko koy doxale noonu mooy rey nit ñi nee na moo kon xam na kattan ci dekkal néew kon ku mun di dee waroo mën waroo mën a wetti dekki saar yu ko jag màkkale wu yi moom saar yu ci son waa arbaona waa arbaona aaya ñeen fukki laayal buur commencé ko ci jumla jooju mu doon jumlay mos commencé bismillahi sas naa wax sama bismillahi sas sa tur turu buur arrahmaani kay yërëm ñëpp di leen ci àddina arrahimi kay yërëm ña ko sopp ci àllaaxira wa tóori gi ma tóoru sinaa wa kitaabin ak téere ba maslubat buñ bind fi raqin cib der bu di buñ tasaare maa ngi géñ ci tóori Sina ba bu mu dindi yonent Yàlla musa ak kitaab ba nga xam ne dañ ko bind ci raqin mansoorin ci kayit yu ci ay der yu ñu yu ñu tasaare yu ñu tàllal kitaab ba nañ ci ñu ne mooy téere ba nga xam ne moom la yonent Yàlla Musaa dem nekk loxoom ca Tawreet te Musaa di jéglu lu xalimba ya na muy dawee ñu ne mooy kitaaba mooy lawul mahfuz mooy xaliwa yàlla jooju nga xam ne ca la wattu mbi ca la ca la moo moo wattu lépp moo wattu lépp lu nekk ak lépp lu xala nekk lawul mahfuz mooy registre yàlla bu mag ba nga xam ne ca la nekk ak lépp lu façon nekk wattu na ko ca kullu ma huwa kaayinun wa kullu lépp lu nekk ak lu façon nekk ma ngi ca téere boobu ñu ne moom ca la yàlla yi di géñ mooy ñu ne déedéet kitaabul mansoor mooy dawaawin yoo xam ne mooy téere yoo xam ne malaaka yi ñu yi ñu dénk ñu ñuy wattu di bind suñu jëf yi mooy téere yooyu la la yàlla yi géñ nga xam ne bu yemal xayaamat yàlla fay tàllal téere ya tasaari téere ya ku jël ak sa loxo ndeyjoor mucc nga ku jël sa loxo càmmooñ texaadi nga ñu téere am na ñu ne ba tey mooy alxuraan lu mën a xew yàlla da ko nakkiral kitaab buñ mastuur la téere buñ bind la fi raqin fi ci té ci kayit yoo xam ne wala ci der yoo xam ne dañ koo tasaare tagal ko lu muy gëñ bare guddi mu ne wal bayti géñee na ma néeg ba al ba di buñ dundal yàlla ne maa ngi gëñ fi néeg buñ dundal baytul mahmoor Ah, borom xam-xam yi dañoo wax ne benn néeg la bu yàlla ci asamaan si juróom ñaareel mooy kaaba malaaka ya ni suuf si amee nit ñi kaaba di ana awala bati wañaa si bati bakkata muy kaaba yàlla sampal leen ab néeg bu ñuy jaamoo yàlla ñu doomu aadama yi yàlla yi samp na benn kaaba bu ñu tuddee baytul maamuur ca asamaan si juróom ñaareel ya muy kaaba malaaka ya malaaka ya koy war baytul mahmuur moomu borom xam-xam yi dañoo wax ne moo kaaba gi ñoo tolloo su fekkoon ne ci natt asamaan si dafa rësoon su ñaareel su juróom-ñaareel buy buy kaa buy rës buy wadd ca kaw kaaba ga lay wadd ni nit ñaamee kaaba kaaba ak ak kaaba ak nit ñoo tolloo bu leen yàlla tollale nga xam ne ci kaw ci asamaan si yàlla moo mën a nattu la ñoo tolloo nga xam ne bu doon wadd tey ci kaw kaaba ga ca Makka la ci lay dal baytul maamour nag ñu ne mooy ab ndigal boo xam ne ñu ko maamour dafa bëri luñ koy dundal baytul la néeg boo xam ne ñu ko dundal ndax ca naanaa la ak mooy kaabaay malaaka ya te borom xam xam nañ bët bu set juróom ñaar téeméeri junne malaaka danañ ko wax ci wane te malaaka yi dem ci jël si at malaaka bëri kon malaaka yi noonu lañ toll baytul maamour néeg la boo xam ne malaaka yi dañ koy wër jamono ju nekk ñu koy wër ñu ne néeg la boo xam ne ma ko waxoon léegi bat bu set juróom-ñaar juróom-ñaar fukki malaaka danañ ko wër te ku dem doo del siwaat ñeneen ñëwaat ba yàlla ba ko yàlla keree ba nëgëni bat bu set lim boobu ñooy dugg te lim bu dem doo del siwaat te waa ko sax dawaa lim noonu lañ ba kër pis ci kon nga xam ne malaaka bëri na moo tax yàlla tudde ko néeg buñ dindal wa saqfi loolu hadis Buxaari yi ak génne ko ci Buxaari na yoon bani baytul maamour dafa koy dugg bët bu set juróom-ñaar fukk ak ci ay malaaka te ñu dem duñ jël siwaat ñeneen ñi ñëwaat mu ne wa sax fi ki ñene ma téeg ba al marfu'i bari bu ñu yëkkat yi te mooy asamaan asamaan ab téeg la mooy ab xat ba bu la tiim mu ne géñee na ci asamaan li nga xam ne mooy téeg bi ñu tiim bi ñu yëkkati mu tiim ñëpp te mooy asamaan si yàlla maa ngi ciy wal bahri géñee na ma géej ga almasjoori ga di guñ feesal géñee na ma ci géej ga nga xam ne dafa feesa ki duus ñu mooy géej yëpp Ibn Abbas ne na yajhalul bihaara kulla yawmal qiyaamati mu ne bari kon kon wal bahril masjoori géej yi ñu taal mu ne ba la xeraa ko yàlla fay taal géej yi maanaam géej yi ndox géej yi fi nekk nii àddina bi géej ak ndox la ndox lañ ci xam waaye ba la xeraa nag yàlla fay topp ndox mi essence sotti sotti ci almet mu ne jëpp di tàkk mu ne géej yëpp lay taal géej yëpp la yàlla taal yawmal qiyaam su ko defee mu dolli mu dolli tàngooru safaraw jahannama gën a tàng moo tax jahannama yàlla géej àddina yi bu yawmal qiyaamate

lu may fay dem di xare ji wala muy omra ji wala muy haji mu nekk ron géej gu nekk safaraam ca safara ju nekk géejam ca ñu ne xam naa mooy pétrole yi nga xam ne mooy commencé feeñ ci àddina bi pétrole yàlla moom lu mu wax yonent bi la wax dëgg lu wax dëgg yàlla moom lu may ne mu ne ron mu ne ron géej gu nekk ah. Ah. waaw safara waaw noonu la ko noonu la ko yonent waxee xam nga yonent mooy wax moo tax alxuraan waxee yàlla rek la mën mu nekk bu kenn dugg gaal daal xam naa suñ ndaw yi Sénégal war nañ ko war nañ koo dégg gaa yi dugg ci mbëkk mi waaw dem daan Barça wala wala Barça mu ne yàlla yàlla yonent mu jar ko nag mu ne bu kenn dugg gaal lu may da ngay xaj da ngay dem xare ji da dem xare ji ci yoon yàlla ngir wala ngay dem di xomra ji wala ngay xaji ndax ron ron géej gu nekk safarante mooy pétrole ron ron géej ron safar ron pétrole ron pétrole bu nekk safara ak géejam ca mu ne loolu moo tax mu ne wal bahri al masjuri ak géej guñ taal am na ñu ne it al masjuri mooy guñ feesal géej yañ feesal ah mooy géej yi nga xam ne dañoo fees dañoo feesal dañ ko feesal ak ndox ah léeg-léeg it mashuur mën naa firi géej gu wow buñ buñ demee ndox ma ah bañ jaxasee lu ñu xam a xaw daal yàlla ngi ci géej yooyu nga xam ne dañ koo taal te dañ koo feesali lu yàlla géej mooy lan ñëpp mën nañ ko baaxal ma yàlla ko yàlla géej nañ fi ñetti géej ci bopp génn ci ay mbir géej lu rëy buur bu toll yàlla moo géej lu muy géej ne inna asaaba rabbika la waaqi loolu rek la géej kat mu ne may leen bëgg li may géej ba léegi faam ci penc mi ñuy sikk ndax sama mbugal mi may digaal ak dina ñëwam déet yàlla ne ah inna asaaba rabbika naka seen mbugalam borom de la waaqeun aji tabbi la dafa tab maa lahu min daafi' kenn mënu koo delloo gannaaw kenn mënu koo delloo gannaaw kenn mënu koo jël loolu rek la yàlla noonu yàlla li may gën yëpp ci wattoo rek kitaabeek bahril masjoo rek yëpp gën yëpp mu ne inna asaaba rabbika la waaqeun sa dafay tabbi yow Muhammad maa lahu min daafi' amul koo mën a jañ àllaaxira dañu kenn mënu ko jañ te bu ñëwee it mbugal ma dañ loolu la yàlla moom géej ada kañ la yow ma tàmmooru bés ba dana jaayu asamaaw asamaan sa ma waran ak jaayu boo gisee asamaan si nga xam ne ba nga tax mu ne dégg yëngatuwul nga toog asamaan yëngatu yëngu ci jaayu xam ne li bés baa ngay waññi wa tasiiru muy dox aljibaalu montagne yi sayran ak dox nga gis jotta montagne yi mel ni luy dox fañ bàyyee koo di yëngatu commencé mokk mu ne keroog nga xam ne bis baa ngay ñëw boobu lay bëggal mi ñëw nga ne ko luy xew mu ne fa waylun tatan bëggal yow ma isin bésab keroog lil mukassibiina ñaan na ñuy weddi alaxira mu ne keroog dañuy weddi ñi wut alaxira dañu am bëggal mu métti métti ndax ñoom waajaluñ ko woon ndax nit ki lu mu gëmut du ko waajal moo tax keroog dañu gëmut alaxira ñoom danañu am problème ñuy weddi alaxira dañu am ndax dañu am bëggal mu métti ñaaña moom ñaaña nga xam ne hum ñoom fii xaw di nekk na ci ay xuus yàlla xamoo ci ay neen rek lay nekkoon ci xuus ñoom seen dundu gi yëpp defe na ay caaxaan ak taxawal rek ci lañ mooy mooy àddina jaamu yoon yàlla ña nga nekk rek ci xuus ci ay caaxaan ak hum fi xaw di ñu ci xuus yàlla xamoo ñu caaxaan caaxaan sàggane la leen tax laa tax yàlla bind leen nga ne kañ la mu ne yow ma ba def na jañ ila naari jahannama yóbbu ci safara jahannama daxan aji jañ bés boo xamante ne dana am ma nga xam ne mooy dikk di leen jañ ñoom waa safara di leen puus dugal leen biir jahannama malaaka yi di leen jañ ànd ak ak forcé naan leen haasihi haasihi naaru safara sile allati mooy sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen bi haa ci moom tukkasi ba daan koy jañ safara sii day ngeen dugg tey mooy safara sa nga xam ne bu ñu leen ko mosaan wax ci waa dina bu ñu leen ko mosaan wax ak yonent yi ci lam yonent yi ngeen gëmu leen ko ngeen ñun gëmuñu ko yàlla yàlla du bindi lakk bu ñu la wax ngeen ne ah yàlla du bindi lakk dañuy dañuy waaraate rek dañuy dañuy xuppaati rek safara si tey ngeen nar a dugg moom ngeen doon weddi démb ca àddina haza haasihi naaru si la safara alati kuntum mooy sa ngeen nekkoon bi xaa ci ma tukka si daan ko weddi ca àddina afa sihrun haasa ndax lii njabar la déedéet du njabar te ngay seen bët afa sihrun haasa ndax lii njabar la yéen a ngi wax yéen te ne ma njabaraan kan la li ñu wax dëgg ñee leen dugg leen safar ndax ndax safar si njabar la am antum wala boog yéen gisu leen li ngeen xool nii njabar la dëgg wala dëgg wala da ngeen a gisut mooy li xale yi wax tey keroog ñoom ñëpp dañ xam dañ dañ xam ne lépp dëgg la keroog dañ lépp dëgg la am antu wala yéen laa tubsiruna gisuti leen ñe leen islawha dugg leen safara nag mu muñ leen mbugal mi aw laa tasbiroo wala ngeen bañ a muñ moo ci am képp dugg leen safara safaraa ngoog dugg leen ko dara gën tamit loolu janoog safara ñu nekk nga dugg ko tey far tey nga dugg far force yàlla yàlla musal mu ne dugg leen safara ngeen muñ ngeen ñàkk muñoo ci am nag moom da dugg rek muñ ngeeg ñàkk jëm ci yéen safara yàlla na caalam ko fa yàlla dugal nga muñ ak nga jooy nga def nga caali yàlla faalihul loolu yàlla ni islawha dugg leen ko fasbiroo muñ leen aw laa tasbir wala ngeen bañ a muñ sawaanu aleykum moo yem ci yéen seen muñ ak seen ñàkk muñ seen ñi ak seen jooy xemal moom xemal innama tuj saw def leen fay rek maa kuntum taamalu la ngeen jëfoon rek la ngeen fay kat yéen weddi woon ne safara amut aljana amut alaxara amut ngeen nekk ci di caaxaan rek di fo di tooñ nit ñi di lekkal jàmbur yi di tappale di xuruj di jëw di rambaaje bu ñu waxee ngeen ah yàlla du bind lakk yàlla bëri na yërmande yàlla du bind lakk nit ñi dañuy caaxaan rek bu nit ñi xoor ngeen ni ngeen ka ba ci weeru koor jàpp ne rek léegi nag yàlla fay na safara léegi bu ngeen ci duggee nag booba ngeen muñ ngeen ñàkk muñ moo ci xem rek la ngeen fay innama tujzawn nag fa li maa kuntum ta'maluun la ngeen ñi gëmoon ne moom àllaaxira dana ñëw danañ dekk danañ tax seen borom bay wattandiku mu ne innal muttaqina naka way ragal yàlla ña nga xam ne ñooy tandiku fi jannatin fi jannatin aji nekk ci ay tool wa naimin ak i xéewal faakihin min mu ñu way foytu foytu mooy ñuy xéewlu rek mu ne ñi ragaloon yàlla nag ñoom démb nga xam ne ñoo xamoon nañ ne àllaaxira dana ñëw moo tax ñuy xoor di naafila di julli di saraxe di moytu tooñ ñu ne ñooñ de ñoom ñoom ñu nga nekk ci ay tool ay ay jaljan yoo xam ne ak xéewal yoo xam ne ñu ngi cay faytu bi aataahum ca la jox na leen rabbum seen borom ca leen yàlla may ci ay teraanga ak xeetiw mu fegal leen moom yàlla rabbuhum borom seen azaabal jahim mbugalam safara ñoom de ña ngi ci ay xéewal yàlla mi nga xam ne moo mën a fegal na leen mbugalam safara seen borom ba pare naa leen kuloo lekk leen yéen wasara boo te ngeen naan xànni xànni mu ngeen di way ndokk di xew bi maa kuntum taamaloon li ngeen jëfoon yàlla ne ko léegi nag yéen mucc ngeen ci safara yéen du ngeen dem safara sori la leen safara dugal leen naa lekk leen nag naan te ngeen sant yàlla te ngeen ndokk bu baax ngir seen jëf yu baax ngeen jëfoon mu takk yéen mbir mu ji ay sukkandiku ala sururin ci lal masufati yi ñu rangale ñu ngi defal ay lal ay canapé yoo xam ne ñu ragal ñu sukkandiku toog waaw ñu sukkandiku sa canapé yi toog di lekk kanaan ala surin masfuusin mbay ay canapé yu ñu rangale yu ñu rangale wa zawajnaahum ñu denc loo ñu denc loo leen bi hóorin ci jongama yi way bëtu yu taaru ñu toog ñu denc hóorul ayni ya nga xam ne jongama yooyu mu leen tuddee hóorul ayni ay jigéen lañ yoo xam ne seeni bët dafa yaatu la ca war a weex dafa weex la ca war ñuul ñuul mooy mandargaam jigéen ci rafet maa tam woo jun ci bët yi ca bokk wa zawajnaahum bi hoorin ci bay ci ay jongoma wala si na ña nga xam ne ah nga ne ah loolu de moom xewal yooyu de bëgg naa ko mu ne waaw am na ñoo xam ne de tey ñoom xañ na ay julli la ñoon gëm nañ yàlla waaye seen daraja ya àggu ca seen darajaay bàyyi ak seen maam ya seen gëm yàlla ga si àggu ca ñoom mu ne waaw ñoom itam buñ góorgóor la mën naa la yégal mu ne wala si na ña a gëm nañ wa atbaahum te wa tabaxum te topp leen suriyaatum seeni seeni sët seeni njaboot bi imaan ci gëm yàlla gu yees gëm yàlla bàyya mu ne ñi nga xam ne wala sina amanu ñi nga xam nañ gëm gu mat wa tabaxum te topp leen suriyaatum seeni wàcc seen seeni seeni njaboot bi imaan ci gëm gu du yees gëm ak gëm ak bàyya alaax naa danañ xeegal bi ci seeni njaboot mu ne ñi nga xam ne nag ñoom ay jullit lañ seen bàyya dañoo gëmoon gëm gu mat waaye xañ na sët yaag doom ya gëm nañ gëm gu yees gëm nañ gaa waaye gëm nañ gëm boo xam ne dafa yees gëm ak bàyya ak maam yi mu ne ñoom dañuy xéegal seen seen dañuy xéegal seen dañuy xéegal seen waajur yi dañuy xéegal seen seen seen njaboot dañuy xéegal ci aljanna daraja yi nekk bu ñu nee aljanna daraja yi nekk dañ fa xéegal sët yi ci barkeem maam yi loolu la ak loolu loolu la ak sëriñ di jariñ maanaam alax naa bihim suriyaatim seeni seeni njaboot su fekkee ne taalibe dañ koy dañ koy égal ci doom muy doomi maanaa taalibe buñ ko yegalee ci doom muy doomi maanaa su boobaa su fekkee ne moom taalibe bi dafa gëmoon gëm gu xees gëm ak gëm ak te sëriñam gëm-gëm gu mat moom ba nga bu demee aljanna sëriñam ak gën a ko kawe daraja mu nekk ci daraja ya gën a kawe yàlla taalibe yooyu nga xam ne gëmoon nañ gëm gu waaye gëmoon nañ gëm dara di jëf di kos-koslu dañuy xéegal ci seen maqaama sëriñ ya loolu rek la lay jëriñ waaye bu caagee na la taalib fay tëgg fay nelaw ah ci àddina bi def la ko neex bu ñu waxee man man taalibe la diw laa yaakaar te diw moom di julli moom nangoo julli buy kooku bu diw di xoor moom nangoo xoor bu diw di sàmm lekkaal yi moom muy lekkaal li jàmbur yi bu diw di sàcc bañ a sàcc moom muy sàcc naa boo léegi moom laa yaakaar yaa ñu fa ñu dem rek yàlla ne fabal ñu yóbbu aljana loolu kenn sañu ko àlaxara loolu amul dara jooju yàlla may ko kenn àlaxara lam la may kay mooy ñu ñu ñu récompense la te loolu boo ko seetoon ñiy jàngalekat yi xam nañ ko ñuy jàngale euh, élèves yi élève boo xam ne du def dawaar du ta dafay tardé du jàng du benn benn leçon ñu ko recommencé ñu ko recommencé ko kenn du ko kenn du ko bi ñuy recommencé mooy xam dafay góorgóorlu def dawaar du tardé mu manqué tuuti point benn point ñaar bi ñu ne ko ñu ne ko nañ ko dimbale moom mi ngi góor na xam nañ yaakaar naka noonu àlaxira kañ fa ñañ fa récompensé nañ fay récompensé di ko di ko di ko di lancé di rambu mooy ñu xam dara répressé waaw ñu fay répressé sama digg français yi diggu ma tubaab léegi ñu a xew daal ñu ñu fay répressé àlaxira mooy ñu xam point waaye dikk rek ak na ñaan diw laa yaakaaroon ñu la mor ko jë ñu la yow mor ko jë doo ko gis tey moom fa mu nekk ak fa nga war a nekk abrar la fi la fi naayim ñoom ñu yàlla yow nag fujjaar yi nga bokkoon kaay dem ci fujjaar yi rek moo nag moo tax loolu firi laa ji daf koo leeral naka noonu it maam ju baax it ah sama maam baaxoon na rek moom moo fi def lii moo def lii moo wax lii moo def la moo doon def nii def naa toog tax nga dikk rek dama ne sëtam la léegi man lu ma neex lay def damay damay exploité nit ñi rek ngi sama maam ñu may jox ñu jox addiyee nit yaakaar koy ma koy ma koy saay-saayee di ko di ko di ko ko carte ka naanee ka dugal di ko tëlee di ko tëlee ay gel ba ba dee foog ne sa maam dana la sa boo dee dool ci sa maam sa maam boo demee yow ñu ne asa hamadun xayru saalih dañu waxoon noonu lañ lay wax yàlla wax na lépp alquran lañ waxoon noonu ba mu ne asa inna inna inna ibni min ahli ñu ne ko dee innahu laysa min ahli inna amalun xayru saalih boo amee ne ko sa kat kii du bokk ci sa sët yi ndax amalun xay amala xayra kon na dem foofu kon loolu mooy jëriñ boo amee maam ju baax wala sëriñ bu baax da nga koy jéem a roy buy julli boo mënta julli guddi yëpp yi da ko fexe fexe ba matal farata yi boo matalee farata yi bu guddee nga def safaa wi tëdd nelaw dem xëy waaw yaakaar bu julli jotee nga jàpp booy liggéey booy jaay booy commerce booy jàngale booy liggéey maçon boo waxtu jotee bu ñu la def nga ne cëpp la nga doon def jàpp ba mu baax nga dem julli julli gu mat waaw ba ko defee boo liggéey xëy na yow daawoo naafile moom daanaa naafile am na yim doon wax yàlla yow tal amoon jotam boo léegi boo xootee boo xam ne ci yàlla ko copp ca dara dem ko ko yàlla jaarale ko ci moom boo léegi mu fay la waaye ni ñu ko bëgg a doxalee Sénégal jàpp ne yow bi moom da ngay rek di barkeel moom moo gàddu yëpp moo moo moo moo gàddu lépp ñenn ñi sanaan kenn sa saxaar di yoon sa bagage ma ne ah, foofu du saxaar ak bagage de waaw <laughs> ah. waaw ah, nañ fekk ci yoon rek àllaaxira kenn ku rek yaa yoon say bagage kenn du fay kenn bagage waaw mooy sëriñ ak taalibe loolu moo tax loolu rek parce que moom la moom ji laa su fekkee ne daal sa sëriñ bi dëgg la moo la moom nga jëm ne moo la gën a ragal yàlla moo la gën a jege yàlla waaye yow mënoo àgg fa ci dara jaam gëm yàlla dafa àgg nga góorgóorlu nag sa yenn rëcc rëcc yi nga xam ne manqué nga ko bu dee mën nañ la ko mottali waaye élève boo xam ne du ñëw du jàng day tardé def dawaar defu dara am am am zéro virgule un loolu ñu naan dañ koy recommencé loolu dafay caaxaan dafay nax boobu loolu moo ci nekk loolu moo tax alax naa bihim suriyaatihim yéegal nañ seen wàjjur seen maam ya de ñu yéegal seen daraje bu ñu demee yawmal qiyaam darajaatin lay doon hum darajaatun indallaahi alquran a ko wax am na ñoo xam ne seen daraja fay ko danañ dugg aljanna naam waaye seen daraja du xàgg seen darajaay maam yi ak seen sëriñ yi ñu leen fa loolu la Sawbaan waxoon yonent Yàlla sallallaahu alayhi wa sallam keroog ba mu naan ko almaru maa man ahabba dañ ko war a leeral ba tax na mu ko ndax moom dafa bëggoon Sawbaan dafa bëggoon yonent Yàlla sallallaahu alayhi wa sallam ba nga xam ne am benn sorne bi mu gisul yonent benn ñëw jaaxle lool jooy ko ci kanam sëriñam boobu Mouhamed Sall nga xam ne mooy gën ji sëriñ ah mu ne ko soobaan loolu dal da ngaa fi mu ne ko déedéet man daal dama am lu ma jaaxal mu ne ko ah mu ne man damaa xam ne ni ma la bëggee bëgg naa mu bëggal goo xam ne mënu ma am waxtu woo xam ne mënu gisuma la te ma xalaat ne buñ demee aljanna xam naa ne yow sa daraja ji man mënu ma faa am mënu ma ko àgg daraja ji kawe la la yàlla man xam naa bu ma duggee mën naa am du ma àgg dara ñu ma la gis du ma loolu moom loolu daal moo ma jaaxal du ma demee aljanna may toog du ma la gis nga nekk ci du ma aljanna lu mu neex neex daal ñàkk laa gis moom moo ma ci jaaxal ma de xam naa man mën naa ma dem aljanna bu ma demee aljanna yaa ma dem aljanna yaa may gën a ko way dara lu may def ci man mañ yéen ne ko ah loolu nga wax daal di koy bégal daal di ne ko bégal al mar al maru ma aman ahab nit ku nekk ma ngay ànd bëgg lay nekk aljanna kim kim bëgg lay nekk aljanna kim bëgg lay nekk yoon la xam waaye ba sa daraja yi ga yàlla dana la dana la baaxee dana ma dana baaxee ci sama barke sama barke xéegale ci sama daraja ja nga ak si fa nga bokk man aljanna moo tax jullit ñëpp ñi gëm yonent yàlla moom ñoom yonent yàlla moom ñooy bokk aljanna ñooy bokk daraja yu ñu nekk ndax yàlla fay maq maqaama maqaama Muhammad la yàlla xéegal xeetam yëpp su ko defee ñu gis moom ndax ñi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy ko gis moo tax loolu la ko lan waaye waxu ko ne ko lu caageen ne da dangay toog rek naan bëgg naa diw bugg naa diw te la muy def doo ca def dara kooku naxante la euh, moo tax mu ne wa ma alannahum wa ma naa duñu wàññi min am seen jëf seen seen dara te nag jëf yooya jëfi bàyyi duñ ci wàññi dara waaye dañ ci yokkal dañ yokkal doom yi rek wa ma alannahum ci wàññihum min amali min am seen dara tax ñu wàññi dara ci jëf yi ba lañu waroon fay bàyyi ay mat sëkk te loolu ku ne xam na ko loolu tubaab yi jàngale nañ ko nee leen tubaab yi dañuy ko alxuraan dañ koy jàngale ci maana ndax fi nekk nii boo boo maasee boo boo boo jëlee connexion ki la ki la du yàq dara ci connexion bi day dem ba ba ñi wifi bii nga xam ne boo defee nii ñu branché kenn bara ñu branché ñu dem du tax kenn ku nekk ma ngay ma ngay joxe la ma am kon ñoom itam yàlla dana leen jox ba pare te du wàññil ca cëri maam ya dara ali wax na ne laajoon nañ yonent bi sa laajoon na xadijatu xadijatu laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari doom yam amoon teñ dee ci coddo ndax yonent xadijatu ko xadijatu jël amoon na ñaari doom yoo xam ne ndax yonent xadijatu ko sëy na ñaari sëy soog a àgg ci yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ñaari doom yamoon ci coddo ga yonent bi ne ko huma fi naar loolu yonent rek ko ñaan ñee ko sa ñaari doom yi nga amoon ci coddo ga ah li muy bëgg bëgg Xadija mu ne ko ñoom day safara lañ jëm ñu nga safara ba mu gisee nag ah loolu nag neexul ndax doom ji nag day ju nag boo sañoon sa doom dem safara nga dégg ñu sa doom nga safara du doo neex mu jis nag loolu ci kan xanam Xadija tugu neexu ko yonent mu ne ko law raayta makaanuma la abqattuhuma mu ne ko boo gisoon seen barab bañ am kon nga mere mu ne koy xadijatu daal koy laajaat ne koy yaa sama doom yi ma am ak yow ñoom fu ñu nekk mu ne ko fil jannati ñoom ñu nga aljanna topp yéen daal ne inna daal di wax ne inna al muminina awlaaduhum fil janna yéen tuuti daal wax ne muminoon yi ñi gëm yàlla seen doom yi ñu nga aljanna buñ masoore sóoree buñ ma sóorul buñ ma sóoree te gëmul yàlla dañu buñ ma sóorul te dee fekk ay doomi jullit lañ toog ñu aljanna la mu ne wa innal musrikina awlaadun fi naar musrikina yi ñoom seen doom yi safar lañ jëm de buñ masoor ak buñ ndax suma xaraa nabi sallam wala wa suma xaraa li seen suma xaraa nabi sallam wala seen amanu wa tabaa rasuya bi man alahum min suriyatihim hadis bi imam Baxawi génne na ko ci isnaad saxla bi lu ko mën a xew doom ak bàyyi ko mën a ci yëgalee ndax taalibe Ah, moom itam kay la ci doom doomi mana la moom la ko suma gerte mooy doomi rox moom lañ tuddee doomi maanaa mooy ñi nga xam ne yaa leen yar defal leen ci diine ah, say say doomi maanaa la ay doomi rox buur ne kullu mri'in kullu mri'in sépp cam képp képp nit bi maa kasabalam fàggu ci ay bakkaar rahinun tay dañ ko faa tayle wala nga ne moom mi ngi ko firee xéefar mi ko euh, téere bépp xéefar bu nekk la nga jëf dañ dafa tay sa jëfi kéefar waaye ñun ñëpp dañoo tayle kenn ku nekk nag yontu wax na ko benn nga fa mu'tiquha aw mubiquha benn nga fexe ba goreel sa bopp mooy nga dugg ci lii léegi jaamu yàlla wital yàlla gën ci wakkaale wala nga xalaat sa bopp mooy nga des ca fañ la tayee maa tax yépp dañ yàlla ne kenn ku nekk dañ laa tayli ci say jëf léegi nag yaay fexe ba libéré sa bopp ab tay nag benn mu wel wala mu ñàkk wel wel mooy mu lew boo delloo jee la ka nga tayle sa alal la mu ko joxoon mu delloo sa alal boo ko delloo jee mu lew fa waaye ñun tu yàlla fa ñu at tayle suñ jëf yi léegi nag lu koy lewal mooy tuub génn ci bokkaale jaamu yàlla kon ngaw goreel nañ boo ko bàyyee boo boo deful loolu nag yow sa taye ba wel na moo moo ne wel nga sa bopp sa bopp nga tayle woon kon wel nga fa leen yóbbu ca musiba ba dem ma ngay wax xewu yàlla janne waa am dam naahu ñu mëdd leen loolu faraat benn daf ko daf ko dugal ci diggante bi rek waaye xewale lay lim lam leen defal waa am dam naahu ñu tëbbaleen bi faakee ci xew ci ay ay ay pay payteef mooy ay fir wi wala min ak yàpp bi maa yastahoona ci lañ sopp dañ leen jox aljanna xeeti lekk yoo xam ne ay paytu ay fir yu bëri ak xeeti yàpp yu bari yoo xam ne ñoom dañ ko bëgg ca àddina yatanaasamoona danañ joxante fiiha ca aljanna kaasan ay kaas la laxwun deet caaxaan fiiha ci moom wala wala rafas wala taasim tàggeen bàkkaar dañ ca mari kaasu bi ko waxee fii man ca na man ca na ngas man ca na ma sàngara waaxal janna dañuy joxante ay kaasi sàngara sàngara soo xam ne nag bokku def sàngara si fii fii boo koy naan dafay yonjaxal sa loxo yi sa sa yaram bi day mujj loolu man sa sid yëpp lay lay lay dagg foo gis man di ko dëgg du man dara ba wane ko yëkkati ma satala sa bootu mu rëcc ko mu rëcc ko ndax loxo yi fay kay kay loxo yëpp sid yi yey dee te dafay bopp bi dafay am xaañaan bu ko maree day bëgg dee lu mu gis jaral na ko mu jaay ko dem mën naa jaay boppam sa ci ko sàngara pour manditu te manditu dafay dafay kayan kayan mu ne foofa sa sàngara soosu nag moom du def loola nit ñi laa laxwu dee caaxaan fii ak ci sàngara soosu du la caaxaan caaxaan caaxaan waa tas du la may bàkkaar da nga koy naan too am bàkkaar te sàngara soosu bokkut si àddina si doo du la jëlee sa yaram wi du la dof loo mu ne dañuy jox ay kaay ay kaay sàngara boo tax baatab kaas alxuraan bu ko idlaaxale rek man ca nam sàngara ndax lam cay teg ci ngay xam ne sàngara ci laa laxum fiyaa wala taasim loolu amut amut yanjoxal xamut bàkkaar waaye tuufu pareegul ca xéewal yi mu ne waaye tuufu dana wër alayhim ci ñoom waa aljana xilmaanun ay fero lahum ñaa leen ka annahum fero ya luuluhun luulu mag doodu wu ñoŋal ca kumbut ga mu ne ay ay waxambaane tooyam waxambaane tooyam mooy waxambaane woo xam ne murut la mooy waxambaane yoo xam ne ñaar fukki at dix-huit dinañ am saako kenn amul kenn amul ci sikkim kenn du ci saako ji sikkim ay waxambaane yoo xam ne duñu am sikkim a dañuy seen xar ne day leer naññ day rafet dañuy weex tàll boo liggéey da ngay foog sax ay ay da sax wurus lañ ci lañ ci lañ leen bind ñooy serviteurs yi aljanna ñooy servi aljanna waxambaane yooyu ñoo leen servi ñooy ñooy war di leen servi li ñu bëgg di ko jox ndax buñ saxee sikkim ndax sikkim it léeg-léeg sikkim dëgg la sunna la yàlla ko ne waaye sikkim day ñaawal góor day ñaawal góor day wàññi taar bi sikkim mu ne lépp rek day day day xaw a ñaawal day ñaawal góor yenn saa yi sax boo ko boo ko yéexee war sax mu gën laa ñaawal far loolu moo ci nekk sikkim moo tax mu ne wax maa ne wax maa ne murit la ñu ne wax xam ne kenn du sax sikkim ñooy si ñooy séddale ñooy sori waa aljanna bala kaanahum daanaka lu'lu'un hurusu lu'lu maktul wu ñoñal wu ñoŋal hurusu lu'lu mooy hurus woo xam ne ci kumbur ba naaj bi jàppagu ko dafay bay leer nañ ci melxati noonu la ñuy rafete ñoom waa feroy aljanna yooyu isar yi wa axbala wa axbala mu jublu baadoom leen seen ala bari ña ca des yasa saaru ñu ngay laajante waa aljanna ñuy laajante ñu jàkkaar laajante ñuy laajante nag di fàttaliku dañu toog di waxtaan di laajante di fàttaliku seen lañ lañ la xew ca lañ lañ fa njaaroon Ibn Abbas nee na dañuy fàttali fàttaliante lañ doon ragal ak coono yi ñu doon am ci àddina yëpp ñu koy fàttali naan ay bu njëkkee àddina ay bu ñu waaye weeru Koraan naan tànge na biir biir boo xam ne keroog tur ma dee ci mar waaye waaye sant waaye loolu ma dañuy fàttali dañuy waxtaan ñoom neen waa di laajante ñoom aljanna xaaloo xaalu ñu nga naan naka nun ku naa nekkoon nañ xablu ca njëkk ca àddina fi ahlina suñ ñun si suñ suñ waa kër musfiqin di way tiit mu ne ah ñu de bañ nekkee àddina bañ nekkee sama kër dañoo dama dañoo ragal dañoon tiit dañoon tiit dañoon tiit mbugal woon mbugal mbugalam yàlla hey ni ñu ragale safara bañ nekkee àddina sama waa kër yi dañaan ma moo tax dañ daan sonn di xoor ak nekk ñu dugg ci ngir ragal rek fa man allahu yàlla xeewal aleyna ci ñun njëggal wa waqaana mu fegal ñu xasaaba samum mbugal mbugalam safara mooy lakk réew samum samum réew samum samum mooy ngelaw mooy ngelaw yooyu ànd ak tàngoor waa kaw xam nañ ci dara am na ñetti am na ñetti yi gannaaw mbooy mu mënoon def mooy réew samum te samum bi nekk kaw la nag moo glace yam ca safara sa bu safara sa nekk àllaxira moom moo gën a garaaw musalman boobu mooy ngelaw mooy sa mooy tàngoor woo xam ne ngelaw lay àndal day dugg ci biir yax-yàq euh, moo tax mu ne ñoom yàlla fegal leen ndax dañoo ragal lu tax lu yàlla fegal leen ko dañoo tiitoon ci àddina yàlla fegal leen may leen ba moomu fegal leen bëggal sa bëggal safara xaaloo inaa ku naa min qab inaa ku naa fi ahlinaa ci suñ ñañ mos ko ne daway tiit bëggal de fa man mu xeewa yàlla xaalinaa ci ñoom ci njëgal wa waqaanaa mu fegal ñu xasaaba sama mbugalam safara de innaa naka nun ku naa nekkoon nañ min qabli ci àddina njëkk ñu ñëw fii na doomu daan jaamu yàlla daan jaa dañ daan xoo yàlla di ko jaamu di ko ñaan inna hoo naka mooy xuu moom albarru mooy aji baax ji arrahim mooy aji yërëm ji de bañ nekk àddina ñun fuñ toll yàlla ñaan jaamu di ko sellal di ko ñaan ne moom mooy albarru rahim mooy albarru mooy mooy buur baax bi mooy ku ñëwee ci ki de arrahim mooy borom buur bi yéen bëri yéen de di koy jaamu de loolu de moo ñu tax a mucc tey ndekete yàlla du boole du bi ñaari ragal waaye du booleel jaam bi ñaari wóolu yàlla du booleel jaam bi ñaari ragal ragal àddina ragal àllaaxira jaam yi nga xam ne ragal nañ yàlla ci àddina bu àllaaxira yàlla fa leen di jox sécurité dañuy am am lu ñu doon ragal ñi nga xam ne nag ragaluñu woon ci àddina dañoo ñemoon ci àddina bu àllaaxira dañuy ragal ndax ñoom ñooñu mbël moo tax ñi ragaloon rek yàlla ma mu musal yàlla musal leen ci bëggal safara kon jaam bi dafa toujours dafa war a ragal ndax jannaa al xawfi wa rajaa mooy jaam bi toujours war naa ragal boromam waaye léeg-léeg mu yaakaar ndax lu tax muy yaakaar innahu wal barru rahim barru rahim jooju ñaari tur la yoo xam ne day yaakaar loo jaam ndax sadidul xaqaab mooy ragal ga da ngay ragal ndax buur la boo xam ne faxaalu li ma yurid la te moom sadidul xaqaab la si bat si la si tawli la yooyu dafay ragal la waaye tur yi nag am na tur yoo xam ne moom barru rahim na da lay xemem loo nga xam ne gannaaw si moom mooy barru te mooy rahim buur bu baax la bu bëri yërmaande bu mën a ñeweti ku bëri yërmaande kon nga yaakaar yaaba ko waaye léeg-léeg nga ragal ndax boo ragalee fii wala xaram dootoo ragal fa sakkir mu ne fa sakkir yow muhammad ci alquran fa ma anta déet yow bi ni'mati rabbika ci xewal sa borom bi kaahinin ngay njabar mu ne ko ah maa gen gën ci xewal jël yàlla xewale ba jox la ak nu bootu yow doo njabarankat gaa yi ñoo wax naan dangaa njabar rey buxaaba ga ah kii de buxaaba dong la xaw ma lu tax nit ñi bëgg a doon buxaaba te buxaaba baaxul te fi ne ni booy seet si réseau yi da ñoo xam ne ak buxaaba dong la ñuy woote te buxaaba baaxul yàlla fa nee na yonent bi doo doo kaay kaay mooy lan bëgg a xam luy xew ëllëg ak ñi ay jinne laa yor ak ñi ay malaaka laa yor ak ñi naan ay laa ay nangam laa yor ak lu ñu yor malaaka man ngaa yor malaaka malaaka yow bul fa xacc yow day day barki na ko xam ne moom nee na malaaka la gis gis na malaaka moo ne ko xam lan lan lan ba mu yàgg mën a ay picc yi ñëw malaaka yow ko picc yi ñëw nii nga jaawale malaaka yi kon mu ne mën a picc ñu laaj ci yow rek ba ngeen geesal ak ma ne ko yow picc ñu nga bëgg a jàll yow nga ne ci malaaka nga jël naa ne xeeb nga jinne xeeb nga xeeb nga rawaan yaa am ci malaaka ba mu yaa ngi lay picc ñu ma ne ko yow ba xeeba picc ñu am picc ñu ma ne ko yow kay picc ñu nga bëgg a jàll malaaka bu ñu nax waay nañ bàyyi caaxaan yooyu bu kaa yi baaxul bu xaaba baaxul da ngay nekk nit ak yàlla jéem a jaamu yàlla di am leer tuuti ndeysaan yàlla yàlla yaram Ibrahima Saxir Saxir Saxir Lo Saxir Saxir soxna ci Dakar ku baax la woon la ko yàlla doon yëg temps yi nekkee Dakar boobu xawoon naa nekk xale dama ko mos a woon benn talsam benn xaatim xaatimu soose yooyu ba ah, eh, ni ma yow lépp naa laa yen yéen ku bokk ci ma kaay ma jox la salaatul fatiha ko ñu bokk ñu ma ma la jël la ñu rek dawal sifat yow ma ni ma yaa ngi jox fete si yaa ngi jox kay fete salatu fete moo gën moo gën moo gën lii tegal lii tegal lii waaye wane yooyu amul njëriñ yooyu amul njëriñ mag ñi dañ ko nanguñ ko woon moo tax ku mel ni Seyd Nour Taal Seyd Nour Taal radiyallahu taala yàlla ko yore ba muy dajeeg Seyd Sidi Hadji Malick fekk na yooyu am na ci yu bëri moom tax dafa yaa ni ma tax na tax na ku mel ni Maodo boobu tuut moom du baax ci moom booba kurus gi laan def ni rek mu soppeeku mu soppeeku ceen caqo am Maodo ne ko tegal gasal ba mu suul lii ëpp naa génne mag ñi duñ kenn dañu am booba xale yoo xam ne jëmatu kala bi mu ne Seydina mu ne ba may taseeg Seydi Aji Malik booba sama kurus bi mu neexee ñetti per rek kurus bi soppeeku kenn or or kenn xamuñu ko waaye ba ko may fa ne ko tegal ba mu suuf su wala lii lii lii fële lii fa ba mu suuf ko nga suul ko waaw nga teg fee nga ñëw ñi jaar ci yoonu yoonu dëgg jaar ci yoonu dëgg bi di jaamu yàlla di sikar salaatul faatiha moo gën ci yow moo gën ci yow waaye waaye mboxaaba Sénégal yi ñu bëgg am mboxaaba lool léegi léegi daal xam lu ay ay ay kaayin kaayin baaxul de kaayin lay yóbbu baax ci kéefar la lay yóbbu kéefar yóbbu la safara ndax da ngay def ba yem ne yow yaay def yàlla defatu am na ñu naan maam man lii maam man la mënuñ dara yàlla mooy ki man fa ma anta déet yow bi ni'mati rabbika ci xéewal ak borom sa ci ak bi kaahinin ngay buxaaba doo buxaaba wala maññe doo dofit doo kaayin doo buxaaba bu ñu yaakaar ne diine ji kaayin la léegi mbir mi man diw sàngam moo man jox nangam barke Muhammad Rasulullah laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah te yow li ngay wax Muhammad Rasulullah da koy tere nañ bay buxaaba buxaaba baaxul de maa leen ko de buxaaba ak jabar yi mun njëriñ de bëgg na mayee lu ñu wallahi bala ngaa dee dana ko nangu te boo dee da nga torox xuusal ci yoon yàlla bi rek di jaamu yàlla di jàng salaatul faatiha fekkeb tiyaan nga boo dee murit nga ñi nga jàng xasidaay seen tuwaay tey góorgóorlu di xoor ko naafila di jàng salaatul faatiha boo dee tiyaan di jàng latif rek yàlla mën na la am ci ñi mën na la ko ci ñëweteeg yàlla gi ñëweteeg yàlla gi mu gën a yaatu ci yow waa jéem a dugg ci ak mboxaab ak xam li xew ëllëg ak li xew kuy falok ku kudu falok kuy yëpp dafa lay nit ci bëgg nekk ab chroniqueur ab chroniqueur dafa digal ci ay ay problème ay problème koo xam ne moom kenn kaamil alxuraan la téye kaamil naa ne kaamil laa maa ngi nii kaamil laa téye amul amul ba ma ne ko yow ma ne ba sax boo demee yaa ko moom bokk ba amul dara amul bari kay mais koy mi yaa boo demee bokk nga ko moom sax yaa ko seen caaxaan yi ñeme seen ñeme yàlla a bàyyi yàlla kenn dugg ci ay bis itam yàlla saatu la moo raw saatu sax kenn du ko jël ci mbatam boo ko ci mbatam rek boobu nga xam ne waa ji kenn la da sa nañ ba ak yëfi yàlla dox suñu bopp yàlla ay jaam yàlla nangul yàlla bàyyi caaxaan yi ñu bëgg a nekkee wa ma anta bi ramayn bi kaay ni ngay ma ñëw jàng ngay dof de am yaquluna wala boog dañoo bëgg a wax ne shaa'irun waykat la day boo ne Muhammad waykat la ndax alxuraan ji way ndax alxuraan na way du way de wax du waxee way de natarabbasu dañ muñandiku bii ci moom raybal ma nooni mujj bam doon dee rek waxtu muy dee ñu ne waaw kii dal waykat dong la nañ muñ rek léegi mu dee ñu noppal waaw ñoom bu ñoom bu Muhammad dee ñoom dañ du ah, bu Muhammad dee dañuy dee moo tax dee kañ ngay ndax yaa moom ku njëkk a dee ndax xamoo ndax bu dee nga de yéen bokk bis bu ngeen dee xam de kon yéen nga yaakaar naan bu dee ma noppalu kon bu dee bu dee tax nga waaw bu dee tax nga noppalu de bu kenn yéene kenn dee ndax ki ngay bëgg mu dee xamula yaa moom kuy jëkka de te mën naa am sax moom bu dee far nga dee kon noppalu ko kon amul njëriñ kon dee ñoom yoonu yëpp ñun. Muhammad ab baykat la dañu mujj di ko rek léegi mu dee waaye ay ay waay ñoom bu dee ñoom dañu fi des ñoom ñoom ñoo bëgg lu yomb ma ne ah, na natarab bi ray bi mag mu jëg dee ñu bëgg mu dee léegi ñu noppal xul waxal Muhammad ne leen tarabasoo mu ñëw ku leen sama dee man ne ma si bi man te maa ngi ñëw de mu ñëw ko si man te mu ñëw ko ba xam maa ngi yéen ko maa ngi yéen ko ci sóoli morom ka fa innani naka man maakum xam naa yéen mutarabbisin way muñandiku minal mutarabbisin bokk na way muñandiku yi man tam maa ngi muñandiku seenam dee te mooy danaa na jàpp leen jàmm maanaam ñoom dañuy muñandiku Muhammad dee Muhammad ni man tam maa ngi muñandiku bis ba ma leen rey badar badare ba keroog badar yonent bi rey ci ñoom juróom-ñaar fukk jàpp ñoom juróom-ñaar fukk xar badar rey seen sàngam yëpp ñoo boo jaxal ak gaa yoo nekk fi di kuy kóolu di Muhammad ñoom mu ñëddiku Muhammad mu ñëddiku saa mu ne mu ñëddiku Muhammad gi moom la yàlla gën a déglu seen bos moo tax mu leen mu rek ñu daal di moo tax ñu daal di dee moo tax yenn mag ñi mag ñi sax ci mag yi ci mag yi sëriñ si mag yi mag suñ mag ñi baax ñi am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne sax boo noo wax ak ñoom dinañ wax dee boo tuddee yàlla njëkk a dee waaw boo leen ko tuddee yàlla njëkk a dee boo leen tuddee dee boo njëkk xam ne yàlla fa leen ko jox moo tax am ta amuru moo tax mag mag kenn wax ak moom di ko wax dee boo boo bëggee mucc ndax am na mag ñoo xam ne boo leen waxee dee rek boo tuuti yaay dee yow. am ta wala ngay digal bi wala digal na le ahlaamu seen xel yi wala seen xel yi ñoo leen digal bi xaasa ci wax ji ndax seen xel yu gàtt yi ñoo leen bëgg diga digal lii ñu gàtt ne Muhammad léegi mu dee dañuy caaxaan am hum am bahil boog hum ñoom xawmun nit ta taaxoo nii di way jéggi day ci jàlgat dañoo beew rek am yàquuna wala dañoo bëgg a wax ne taqawaloo waxtu na Muhammad moo ko alquran te yow Muhammad wax Muhammad ko alquran Muhammad ko fent rek moo ko ay waxam la déedéet bal bahil laa yu'min ni gëm gëmuñu alquran de dañoo bëgg ne Muhammad moo pelamtu moo pelamtu alquran waxam rek ay waxam la rek waaye du waxe yàlla da ko pelamtu rek wax ko yaa ne reet yaa ne demeewul noonu de bal bahil laa yu'min ñoom gëmuñu alquran faliyaatoo dañ hindi dañu wax ne Muhammad wa alquran te Muhammad yaaram la comme ñoom ay arab la ñoo bokk ñoo bokk ñoo bokk maam bokk giir Muhammad yi arab ñuy arab comme que mën naa wax téere bu mel ni kon nañ wax la mel ni lu mel ni alquran nañ def ni Muhammad rek defal nañ def ñu gis goone waa kay mii moo këree tee sa nawle la defal lim def yaa ne leen fal yaatoo nañ hindi bi hadis yi ci waxtaan mis bi bu mel ni alquran nañ hindi wax ji mel ni alquran fekkee moom ma ta wax alquran te seen nawle la te ñoom ay ay yaaram la muy ay yaaram ñoom ay la lañ mënuñ loola in kaanoo saadiqiina wax nañ dëgg wax na leen ñu indi waat mel alquran wax na leen fukki saar mënuñ ko wax na leen benn saar mënuñ ko lu toll ni ina atayna al kawsar sax mënuñ ko raw kon ñu xam ne Muhammad wa moo bi hadis mislihi hadis bu mel ah mel ni alquran in kaanu saadiqin dem wax nañ dëgg seen wax jooju ko wax am xuliqoo wala bind min xayri si dul dara wala boog dañoo fa ne bind ci lu dul dara amul cosaan yàlla moo leen bind ne am am hum am humul xaaliqoon wala ñoom ñoo bind yàlla moo leen bind ci matière bu doo dara te ne leen xamal leen bind leen ci suuf ñaa wax ne toq na man ñu wala ñoom dañoo foog ne am humul xaaliqoon wala ñoom ñoo bind déedéet binduñ dara am xalaqu samawaati wal ard wala ñoom ñoo bind asamaan ak suuf déedéet binduñ ko di am xalaqu samawaati wal ard ñoom bind asamaan ak suuf binduñ loolu de am hendahum bal bahil laa yoo xam ne amuñ amuñ amuñ amuñ kóoli ci tawhid maanaam amuñ amuñ yaqin ci tawhid mar ñu sikki sàkka ne dañ dekke yàlla moom bi da asamaan suuf ñoom bindiñ ko am indahum wala xam dañoo nekk ñoom xasaa'inu rabbika wala ñoom ñoo yor magasin yàlla ya ba ku ca neex ñu koy ubbi di jox ku leen neex ba ku leen neex ndeysaan Seex Ibrahima yàlla yàlla doon di ko yëgale yërmande yàlla ngërmaane waxoon na ko mu ne kemtalaay li ma xam xaw ma ku mën a dem ca magasin yàlla ya sàkk fa lu la neex jox la ko jox ku la la neex mu ne ku ko wax rek nga leen nax ba léegi am ko wax nit ñi di ko xaw a gëm ndax Sénégal yi Sénégal yi moo bëgg ku koy nax toujours bëggul koo wax dëgg te moom moo ko wax sëriñ la kenn gënu ko doon sëriñ ci ci dëkk bi waaw nee na moom xamul ku mën a dem ca magasin yàlla ya sàkk fa la jox ko la neex ay jaam li nga xam rek mooy ñaan ko rek boo koy jaamu daal di ko tudd ko bëccëg amaana boo ko woo mu ne boo koy jaamu di ko tudd ko boo ko woo mu yule loolu la wax amaana boo ko woo mu yule waaye nag boo jàpp ne yow yaa moom ka yaay joxe ka xañe naan jox naa lii ba xañ naa la lii yooyu nax suñu bopp rek mënta wér yàlla ne am na ñoom xasaayinu xasaayinu rabbika wala ñoom ñoo yor magasin yàlla ya bay tibb di sàkk jox ak ku leen jox ku leen di xañ ku leen déedéet ko di ak nu boo ko tëri sàll yàlla rek ko yor ak wërsëg am humul musaytiruna wala boog ñoo saytara yàlla ngiroog yàlla ga wala ñoo not yey de yàlla mooy al qaahiru fawqa fawqa sabat fawqa al ard amul musaytir wala ñoom ñoo not nguur gi loolu yëpp dara ci dëgg kon ñu taxawoo dafa naa ne ci fóolu jubla ju faras boobu la koy bale am la musulamun fa nañ taxawoo loolu yëpp yàlla fay saxal moom kenn la moo wéet moom rek lañu ci dara yoruñ ci dara yoruñ maa ngi seen yàlla ya bay joxe ka kañe saytarawuñ yëf yi yëf yi kenn ko saytara mooy yàlla mooy jabar kon jaam rek nga mën a doon jaam nag dafay nangu doon jaam di jaamu sang ba di ko jaamu di ko nangul di ko déggal boo amee soxla laaj ko sang ba sang moom seet moo xam ne mu koy def ak lam ko cay jox ñun bu nangoo nekkee jaamu yàlla rek di jaamu yàlla di sabablu bu liggéey jotee ñu liggéey war a def résultat ñu doy ko yàlla bu ñu waree ñaan tàllal suñu loxo yàlla ñaan ko te doyloo ko ñaan ko ma naana moom danañu defal la gën ci ñun dana faj suñu xaajee waaye nag bu ñu jàppee ne suñuy mbir dafa loxo dafa nekk ci loxol keneen ku dul yàlla loxol mbindeef kooku moom la ñuy dem di wax moom mu ñuy waxal mu ñuy dig lu mu xam ak lu di ñu waxal di ñu xaw ñu bëgg ñoo xamal li xew ci ñun ak li xew li xew li xew te moom li xew ci boppam sax xamu ko dafa lay tardé rek loolu yëpp daf ñuy indi ay problème ay polémique yal na yàlla dimbali ñu suturaal yi yàlla yàlla nangul ñu kaamil bi liñ ci juum dañu dañu ko dañu ko jéggal liñ ci wax te mu jub yàlla ko yàlla nangu te fëral ñu ko di wax qul sadaqallahu balaxa rasul mustafa saadiqul amin wa nahnu ala ma qaala rabbuna wa qaali xalaas mawlana min shahidin allahuma rabbana taqabal minna xatma alqurani wa rajaa maka fi tawbina misri wa nisyani di wax sid ya raqibu kulla xayrin fina wa kulla aybin waarihi dafina la anta man adat min aljibaali fati raja min sufli ijalhu baynaka daifa zalimin anta xayru rahim matin matin sablana walmuslimina wala tuhawijna li aydi alaalamin bitaaji taalim kon bu subaa jàmm incha allah